baari maayoon baari ma anniya sanba anniya

fii nag mooy Lambaréné Lambaréné nag agsi nañ fi fii nag bu leen fàtte ni Cheikh Ibrahima Mbacke ñëw na fi waaye itam euh, muy barab boo xam ni sëriñ bi di ngeen dégg muy wax naan galwaa galwaa nag làkk wi euh, xeet wi fi nekk lay waxal waaye doo gis ci bindam fu mu bind Lambaréné fekk booba xeet wi lay waxal su fekkee maa yomba vavilles ñoo fa nekk ñu leen di wax ay baafil moo tax dina tudd dëkk bi dina tudd kongo bi mu frontière waaye itam dina tudd xeet wa waaye fii ci ay mbindam loolu gëstukat yi bëgg naa sax ñu gën cee def gëstu ay waxam yépp doo doggi mu tudd dëkk bi waaye xeet yi rek lay wax muy galwaay fii nag la def ñaari at bi mu jógee Mayomba rek def fa juróomi at fii la ñëw def fi ñaari at bi mu fi defee ñaari atit kon fii ko maam Cheikh Anta fekkoon fekkinu doy waar nga xam ni euh, boo déggee sëñ Moussa Ka di wax naan euh, ba Ahmadou loo ñëwee la siidi Anta gontu euh, Cheikh Modou njaay Diop la defoon ab sant Cheikh Modou njaay Diop daan na boot njool Anta di dugg ca gaal ya ñu mel ni jant daan na ko boot di xuus ca dex yaak Maria di jaar ca looca ya ba jàll dund gis na fa xeeti ndinki ndànk ya fa kuy ñoo daan def taati neen di yàpp nit ñi jaaxanke jallonke ak tàndonke noonu mu ko waxe kooñaado ak balonte am na ay xeet yu bari ñu fi fekk yoo xamante ne yu doy waar waaye xam bokkut ak balante ba nu xam balonte ay xeet la woon yu nekkoon fii nga gis ne sëñ gaawaan fii la ko fekk xam naa ni gis nga noonu Serigne Cheikh Khadim Fall surtout maam Cheikh Rahim Fall bi nga xam ne bis bi bis bu marqué la ci moom. jërëjëf ñu nekk ak leeruk maam bi nii muy Serigne Cheikh Khadim moom sëñ Khadim moom Serigne Mortala Fall bis bi yëpp ñu jël lu ci Cheikh Ibra am cër ñu jox ko ko te à vie lay doon. yaaram yaa ngi nii fii sëñ bi def ñaari at bi mu jógee Mayumba mu mel ne noonu rek lan def danoo jógee Mayumba rek. ñëw fi fii la def ñaari at muy barab bu doy waar barab boo xam ni wax na ni ñaari at yi dafa dafa tiis lool ci moom sëñ bi ñu bëgg a dégg rek yan kàddu lañuy dégg ci yow ndax lii sax amunu ko yombul. si see xaddim dinay def ay journée te du wax waaye nag yaaram fii lu nit tëlee tëlee wax ak lu nit bañ a bañ a wax bu ñëwee fii faaw mu wax sëriñ bi ban message la dégg fii ci Lambaréné. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah Euh, ñi ngi sant yàlla suñu boroom di julli ci yonent yàlla Muhammad di sant Serigne Touba xaadimu rasulullah Cheikh Ahmadou Bamba te ñaan yàlla suñu borom mu fayal na ko di sant maam seex Ibrahima Fall di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi te wér ak mboolem njabootu Serigne Touba yi di ñaanal it am di Fall moom Serigne Mourou Mbend ak mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima ak mboolem Cheikh yoonu Mouride ñi Serigne Touba defar ñëpp. ñaan yàlla sama boroom yàggal leen te way dawlu yëpp yàlla suñu boroom xaar leen ajjana ci war saxul mu'minin sëñ Maam Mor fii ku fi ñëw moom benn yëg rek yëg-yëg rek ngay am danga xam ne tey jii yombul nga génnewaat ci téeméeri at nag ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ginnaaw loola boo xalaatee ni nit koo xam ne kiloom àggul woon ci ñeent fukk amu fi mbokk te ñim daa jëflanteel bokk nag moom diine bokk nag moom ab der bokk nag moom waaso bokk nag ñoom sax continent bu ñu dëkk ndax Europe lañ jóge woon ñëw senegal ñëw Afrique jël africain yi indi leen fii yàlla sama borom dogal kenn ci ñoom di Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba ñi nga xam ne dañ doon gàntal bañ noteel ak bëgg dagg buumi njaam yi waaye Serigne Touba nag ni mu doon dagg buumi njaam yi moom lislaam li nga xam ne moom la yonent yàlla Muhammad sallallahu dogaloon te ñoom fu dem fexe ba génn fa diine ji saxal fa seen bëggu yi nu bopp ak seen doxalinu bopp sëriñ Tuubaa moom googa bañ la doon bañ loola nag alhamdulilahi rabil alamin li ci njëkk am ci tawféex rek bi sëriñ bi dellu see Sénégal téeméer boo jël juróom ñeent fukk baak juróom ay juddit lan te ñi tubaab yi jëflanteel jaxasoog ñoom colonisé leen jaar ñoom fan jaar ñu ci dagg seen buumi njaam goreel seen buumi deret seen diggante seen diine ba am cër bu toll ni lii sëriñ tubaa am cim réewam ñu néew a néew lañu kon sëriñ bi jógut woon ngir xeex ngir noteel war a yilif kenn mbaa ñu war koo yilif sëriñ bi lislaam moo ko taxoon jóg lislaam jooju ko taxoon jóg nag alhamdulilahi rabbil alamin yàlla sunu borom defal na ko ci loo xam ne tey jii ci nit ku ñuul ku wooteel lislaam wooteel diine ci sa biirum réew am lu to lii mu amal yonent yàlla Muhammad loolu ñu néew ko am mbaa gisuma ci àdduna kenn ku ma xam koo am kon nag sëñ Maam Moor fii ku fi ñëw xam ne fi sëriñ bi doon sàkkoo la sëriñ bi doon sàkko bi mu koy sàkkoo sàkkoo ko woon bànneex sàkkoo ko woon am nooflaay dëgg dëgg coono la ko sàkkoo waaye moo waral sunu nooflaay tey bii nun na ni see démb noo ngi dem barki démb àggagunu jógewaat naan fa tey ñëw ci suñ tey bakkan ay avion yu yóbbu oto yu climatisé loolu lépp nag liggéey sëriñ Serigne bee ko waral kon nag fii ku fi ñëw war ngaa yëg ne la nga am te amee ko ci sëriñ Touba moom ba mu koy sàkku bërëb yi gënoon a tiis te gënoon a tar ci sàkku teef bi fii la ko Serigne bi sàkkoo kon nag ku fi ñëw rek yàlla yàlla suñu borom nangul sab siyaar barke maam Cheikh Ibra ñëwut it yàlla na leen fi yàlla indi di wax ne fii daal warees na ko boole ci béréb yi nga xam ne dañ koy jóg di ko siyaare te jëmi sëriñ Touba warees na koo yaatal ci adduna bi ba murit yëpp xam ne fii moom warteeku la ci murit bu ne mu ñëw te sëriñ yàlla tax ak yeneen ak seet jaar jaari sëriñ Touba yi ak it liggéeyal fi sëriñ Touba ci fexe ba barab yi nga xam ne sëriñ bi jaar na fa yëpp ten xam ko ñu lef fa lu ko mandargaal loo xam ne ku fa ñëw xam ne sëriñ Touba ci biir liggéey bi fii jaaroon na fi yii fan la fa amoon mbaa yi at la fa amoon loolu daal maa ngi koy yaatal ci sama mbokki taalibe yi murit yëpp yëpp yëpp di wax na it moom lii tuddatul karawaan maa yomba loolu sëñ Cheikh Mbengue mi nga xam ne waa kër sëñ Falilou bu si ñoo ko jiite war nañ cee am taxawaay xam ne màggalu maa yomb la war a tudd waaye war warta tudd karawaan lii ëpp na karawaan lii ak màggal la fu ñuy dem di fa siyaare la te lan fay siyaare sëriñ Tuubaa lan fay siyaare ndax fu ñu dem rek sëriñ bu mas na faa nekk def na fa dara kon nag màggalu maa yomba eh, maanaam topp jaari jaari sëriñ Tuubaa loolu moom yal nañu ci yàlla borom defal tawfeex te yaatal ko ba mu àgg foofu bi jaay rasulullah euh, ci message bi ngeen ñu jox fii la natt yi jeexee nag fii boo déggee sëñ Moussa Ka di wax naan fii lañ tànne wil di Massion fa saasa quartier ya fat bagage ya lambi saasa xaadim dugg na bisub àllarba xëyee limbal wëri alak na barba géej ga di bëx bëxi di fuur di duusu jinne ya jébbuloon di ser di buusu doj ya ak garab ya naan ko noo lay seere yowmal xiyaamati ma al njol maaka ràng na ko fa médaille baatin yu du tekkee kooti la daa borom kun mu wax ne nag euh, ritwaanu naan ko moom nga tey jinaana maaliku naan ko doo xalaxu niiraana gaa yi ba dar ya dar ko muy bandaanu leeram nga jolli na ba saka sar ndakaaru moo tax fii lambar na lu marqué la metti woon na loolu nag ñaari at yi mu fi def euh, dafay dafay dajeeg ñoo xam ne bëgguñu ci moom naflaay léegi maa yomba di tar tar bàyyi woon nañ ko sax léeg mu dugg ci àll bi réer leen waaye fii dafa nekk loo xamante ne lu doy waar la kon yaakaar naa ni murit yi ngeen bàyyi ko xel euh, te ni sëñ Seex Xadim waxee rek ñu bàyyi ko xel kon nag ñu dem ci barab bi àndandoog euh, seen télévision euh, Tawfekh Production Touba TV ñu àndandoo bu soobee yàlla. alhamdulilah nuy sant Cheikhu bàmba tey ngir moo taxaw woon julli woon fa ndar ba nu sañ ko tey rakkaam ya mooy sauvetage ci ñun te mooy dox ba tey màggal ko mooy li war ci ñun di ko sant tey bureau bee fa ndar moo atte mbër yi fa jaar ba wëy ku ci dul Serigne Touba rek keroog signé woon nga wëy soldat sa ak waa tribunal ñëpp xëy kañu naan borom ndar ñëw taxaw di ko yàlla jey ma nga merte naan leen merde maay seen yàlla tey tas jàkka yeeg seen daara yi bu ma kenn lay ku man ku ne noo ma fay ku ne wii ma rey mu daldi di wéy l'islam doog waaj a xëy bay waaj a wéy Cheikh Bamba Cheikh Bamba moo gàntal keroog yéen wu yéen ba wéy ba mu dellu see kenn jàmbatul boobee ba tey ñi ko réere woon daan ko mingaleeg xulamaa yi wéy ban leen boolee bureau ba moom rek a fii nag la ñëw def na juróomi at maa yomb fa lañ jógee mu ñëw fii def fi ñaari at muy galwaa di lambar na xeet wi la daan waxal nga xam ni dane sama juróomi ati maa yomba sunu borom dana ko fay ca bisu ba ñuy wiññee lépp yàlla dana ko fay nga gis ne ah ahmadul xadim sunu waaja koo góor koo jiñ góor danga ko koo yéene waaye Serigne Touba mooy génn góor moo tax sëñ Moussa Ka ne ko billahi mbakke yaa mat li nga doon noo seddu teggi cër bu duun laggul damul daagul te teen ne um nga lambi xarnu bi fii nag lañ préparé woon bato bi ko war a yóbbu sëñ Moussa Ka ne mu ne Abdoulaye Ndour billahi bismillahi jug naa yàlla mooy buur demal ca gaali géej tànn fulku ca mooma at la door a àggal fulku mu fekk fa manduwaar gu taaru mooy paquet dulo koom gu ñuul biir bi weex maaw yi bulo mu ñëw ne sëriñ bi tànn naa gaal mu ne ko yàlla tànnal na ma gaal ñu daal di jël yëre sëriñ bi boole yóbbu ca waax ba làbba yaa ngay xoole tubaab yi teeral keroog ay manduwaar yu gën a taaru yooya gaal yëpp a ngi rang Île de France daa teeru moo daan dem France ak fanu naan pasteeru mbaa gaal nga tudd Windila ak Canada ñoo daan jógee Ndakaaru jëm Kabinda paquet dulo dragobon yëpp a ngi teer yii manduwaar lañ fa am yu doy waar wel di mer naa lañ daa wax artusa moo daan dugal ñi aji laajal Moussa ginnaaw ga lañ liggéey lu taaru resilia la du moy muxtaaru resunu naa di waaj a gën ca gaaña resilia di gaal gën ca gaal ya ma wax la ba Bamba tàbbee ca gaal ga réew ma naan ko waa waa lambar na la lay wax raw nga labbe jalaal ja ak jamaal ja wul jëm mën ja muy saf malaaka boole kook jomam ja Serigne Touba bari jom kon murit buñ fi ñëwee war na noo xam ne fii preuve la sëñ Touba gañe tubaab bi li koy waral mooy fan yu néew di nga gis àddina bépp wàcc fu ñu jëm Touba dañuy màggali xaraj yow ma sabti zamini asar li xidmatul muxtaar fii chehri safar sababu aybatiya an allaha arada an anaala min hujaa wa an akoona shafian li xawmi wa an akoona xaadiman fi dawmi le motif de mon départ de en exil au Gabon est la volonté que Dieu a eu d'élever mon rang jusqu'auprès de lui de faire de mieux l'intercesseur et éternel du prophète jërëjëf Serigne Touba est-ce que borom Touba borom Touba amut morom